ginnaaw bi ñu euh, sant yàlla jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu euh, que li yombul quand même xam nga bi mi ngi mel ne ba léegi ñu ngi suñu parce que lii mooy affaire boo xam ne ni bàyyi fi jabar bàyyi fi doom mais bàyyi fa ay xarit bàyyi fa ay mag bàyyi fa ay parents yoo xam ne ñu ngi koy taxaw ci anam bu nekk ba tey jii teg tànk tey ci gaar bi mel na ni seex bu suñu gaar suñu biir di ñaan yàlla xam nekk suñu borom euh, xaaral ko àjjana gën a kawe ñu ci yàgg toog yàgg kaa ñaanal donc bis bi mu nekk bis boo xam ne nii euh, bis bu ñuy fàttaliku lu bari la waaye muy ñaar équipe yi di fubal muy mbooloo def na fu mu nekk muy équipe am boo xam ne nii lu mu fa deful daka amul avenir bii di fubal aussi muy club boo xam ne nii li muy yéeg première division bii bi ko bi duggoon moom moo ko dugal tey mu demee muy fubal final kon dafa mel ne booy bi ñu seen biir ba léegi nii bon man nag mënu maa wax ci booy bi parce que man. magam rek laa bokk ak moom day ak baay waaye yéen ñi xam ne yéen a nekk ak moom si le milieu professionnel yàgg dund ak moom ànd ak moom yéen yéen a ma gën a xam booy bi maa di ko ñaan rek sa borom man fa mu nekk xaaru àjjana gën a kaw yéen tamit ngeen yàgg kaa toog yàgg kaa ñaanal mu initiative boo xam ne première édition mais presque une réussite totale la di yàlla nag mu nekk ay année yu bëree bëree bëree bëri benn vide boo xam ne nii benn vide boo xam ne mënuñu ko sax expliquer vide bu mu parce que ba maa ngi naan maire bi maa ngi dem si tournoi Cheikh Bousso Diokhane bi mu naan Cheikh Bousso de bi mu fi jóge mat na romb na at waaye mi ngi mel ne tey ji la la fi waat muy vide boo xam ne nii di xale bu ndaw dem à fleur donc euh, métti na mais neex na quand dafa dem bàyyi fi ay ay ay ay euh, ay ay ay vécu euh, yoo xam ne nii tey xale la mais li mu fi bàyyi si njànga dafa bëri voilà Cheikh Bousso Mohamed Badiane ñu teewal ko fi vraiment moom tamit euh, mu jàppale sportu Mbacké mu taxaw taxawaay rafet donc Cheikh Bousso moom comme niñ ko waxee rek Cheikh Bousso ñun ñëpp suñu rakk la suñu suñu ñoo bokk lépp donc tey ñu def damay ak Cheikh Bousso doon ko def final bi tey ñu ñëw taxaw fi taxawaay taxawaayu mag taxawaayu lépp nag parce que tamit Cheikh ñu noonu moom ñoo bokk lépp non souvenir yu neex rek parce moom moom dundam bi yëpp état à venir toujours pour la ak fayda la ci def def su ñu joué mu ñàkk a joué moo waral da doon démarré du démarré mais bu demee ba fin championnat parce que dafa gëm li ñuy def donc door ko un dara ci équipe bi tam moyen boppam sàkk bi si boppam la doon def parce que ne xam ne sàkk donc mu ba def marque empreinte ren ci équipe comme ñi ko ñeneen defee. parce que loolu rek empreinte la joué ci club ñu ba mooy que équipe bi monté na niveau mu nekkoon jógee ci beneen niveau nga dugal biu monté bi loolu ay ay ay de kii la quoi ay empreinte vraiment Cheikh moom demam dafa métti trop parce que jeune boo xam ne dafa commencé woon nekk ci big doole dem à l' étranger war a dem signé ji professionnel semaine bi mu borom def mu mun na mu bàyyi fi vraiment tuuti yaatu yaatu yaatu vraiment di ko ñaanal rek fu mu nekk yàlla aar ko na te moom vraiment nit ñi rafet nañ moom ci ñoom euh, waajuram bu jigéen chaque jour ñu dañu discuter vraiment musul am lu ko naqari ci moom la na musuma am ñaar sax doon fekkoon doo jàpp ne yaar na ay morom la sentiment bi ñu am mooy sentiment mbégte la parce que xale bi ñu koy defal jar na lu raw lii parce que il a tout fait son quartier mais aussi il a tout fait pour son département ndax li mu joué avenir noonu la noonu joué mi ca gox ba noonu la joué avenir de Mbacké aussi aussi li si ëpp solo mooy bisam day yomb ndax bu mu xooloon fi mu jaar trajectoire am nga xam ne nitu aljana la yàlla ko Serigne Touba mi mu yaakaar teeru aljana ndax suñu kenn suñ ko doon joué mais musu musuñoo teg benn charge bi mu ñëwee avenir de aussi def na fi ta teg kenn benn charge ba mu demee bitim réew tëgul kenn charge tubaab yee ko soxla ñëw jël si ko mu dem mais aussi muy lu am solo di rendre hommage di ñaan sunu borom nag jéggal ko xaare ko aljana waajuram yi mu fi bàyyi aussi ak ñi mu fi bàyyi ay xaritam ak yooyu suñu borom may leen xolu muñ ndax nit ku baax ku mel ni moom doon ndaw nekkoon espoir amoon nañ yaakaar ne sincèrement tey équipe nationale dina porté moyo bi mais gi nga li yàlla def kon naan na ko suñu borom jéggal xaare ko aljana et ses mm. proches ak ñi nga mm. ñoo si jàpp mm. le président de l'avenir de Mbacké Mohamed Badiane ñu ngi koy bu baax ci taxawaayam di remercier aussi la famille de Cheikh Boussa Diokhane son grand frère Sassoumane Diokhane et aussi Djili Diagne ak bépp doomu Mbacké boo xamante ne tey bàyyi sa ay yitte ñëw parce que monde football bi yëpp a ngi fi ah. le président du de football de Mbacké mu fi Mamoun Mbaye le président de l'ODCAV de Mbacké mu fi xam nañ ne seen rakk la xam nañ ne il était un avenir mais malheureusement de la voulu comme ça donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndëgte nag lañ si am parce que ndëgte giñ si am mooy Mbàkke delloo nañ ko njukkal li ñu ñaan kay mooy yàlla suñu borom dogal bu déwénee bu ñu koy organiser ñu organiser ko ci stade Mbàkke bi message boobu la ñuy lancé le ministre maire de la commune de Mbacké mu jàpp si bu baax a baax ma stade bi déwén incha allah bu ñuy rendre hommage Cheikh Bousso ñu defee ko ci stade ba ñu ngi masaw nag famille bu baax a baax a baax di jaajëfal waa ASC Mbooloo mi gis nañ fi Père Cheikh Niang mu ñëw teewal quartier yëpp di remercier bu baax nag l'ensemble des sportifs de Mbacké ses frères ses sœurs gis nañ fi ñoom séeréer ñi nga xamante ne ñoo nekkoon na moom avenir de Mbacké ñoom Sidi Diakhaté ak ñeneen ak ñeneen ñëpp tey bàyyi nañ lépp lu ñu jàppoon bàyyi ko ndax bis bi kon yàlla na ko suñu borom jéggal xaare ko aljana di wax ne aussi waa Mbacké daal lii la nañu booloo rek bu ñu boolooyee rek lépp lu ñu bëgg dinañ ko am parce que ñoo ko sot mun néew ax mu bari di remercier les organisateurs ses amis bu baax a baax a baax a baax jaa ngeen jëf merci